barki dem ànd ak waa Bawol ñëw teew ci bisu rakam bi gis nga ku la nekkal ci naaj wi da koy nekkal ci kër gi Tapha Tine yaa gore Tapha yaa baax Tapha Tine yaa bëgg lu baax yal na la yàlla may ndam yal na la yàlla may jàmm. ama seen def yow. ama seen maa ngi koy ziar bu baax defuma dara mais dama ni la man li may wax j'assume mes responsabilités kii bu ay rakam di bëre xeebul kenn xeebul ma Samba xeebul ma Demba amul benn combat. bu benn rakkam di bëre fii te Tapha Tine teew gis nañ fi nag du ma wax tudduma kenn waaye gis nañ fi ba tey xale bu ndaw génn classe magam foofu laa mën a yem ba barki dem rek am na lu xew ci réew mi yow xam nga ko man xam naa ko Babacar doo ma dugal ma laa jóge Tapha Tine jërëjëf man doo ma dugal Tapha ñu ngi lay ziar delloo ziar Babacar yaa ngi am jàmm sant naa bu baax naka yëngu yi sant bu wér sëñ Baye def ci yow ci ne xeebaloo sa ay rak seen bés ku ci am bés di nga takk sa yee daal bàyyi sa soxla ñëw gunge leen. sëñ Bay daa baax rek mais xam nga ñun dañoo def li ñuy war ak suñuy rak rek parce que booy comme ni ma koy wax tey képp kuy son ci ñun ñoom ñooy jiitu ko parce que tey ñooy yeewu 5 heures du matin boobu koo ci woo ne ko ñëwal gunge ma fenn du dem ñooy ànd ak yow ci géej gi dend ak yow ci din yi dend ak ci gradé yi. may sant aussi Papa Thioune Elas Cheikh Mbacké ñoom Mbaye Ndawaan Fallou Ngom Ibra Diagne yi équipe Bawol mbooloo daal ñoo nekk nii kon booy sant jiital ci ñii quoi parce que ñooy yow fajar 4 heures ñoom ngay gis ba 17 heures ngay liggéey ak ñoom kon yoon la tey bu ñu amee bés lii nga ñëw partagé ko ñoom donte 20 10 la nga ñëw dem sa yoon quoi parce que moo jaadu. parce que des fois li ñuy faral di gis mbër yu mag yi seen combat bu jegeñee parce que sa combat soreetul le 12 novembre la. dootuñ faral li ñëw ci stade yi tey yow nga jël sa ay responsable di ñëw ci stade bi. non man benn ci xale yi laa wax bu fekkee ma jàpp dinaa xool nu ma ci jàppe participer ci añ yi wala mu participer ci biir yi wala ma ñëw fi ngay gémboo bu ko temps bi laajee ma ñëw esat loolu moo jaadu parce que suñuy rak lañ am suñuy rak lañ dañ leen a woon war woon yoon jàpp jàppale leen loolu la ko lan moo waral bi. mais Tapha actuellement bala teewaay bi mooy saal Bambey ak Aliou Sock bi doon bëre Aliou Sock yàlla may na ko ndam saal Bambey ñu ngi koy ñaanal ndam loolu la ñoom ñoo ñu indi sax bi tey waaye. Tapha bala maa ñëw sa combat damay ñëw ci MMA bi dégg naa ay at ngi nii yaa ngi ci di ko liggéey ba am nga ci combat ci mois de octobre bi. oui am naa combat 14 octobre. di ñaanal Sénégal na mëñ Sénégal yëpp ñaanal ci bés boobu maak bëmbër ji ñoo bokk benn suur bu ñu war a combat. benn benn salle. Laurent Ndiago kon nag Sénégal yëpp ñaan daal ñu xam dem représenté drapeau Sénégal ñoo indi leen ndam li quoi. yow Bombardier Laurent Ndiago même jour. même jour oui. fële en France. en Lyon oui. Lyon. waa di nuyu Eric Favre groupe Eric Favre yëpp groupe Eric Favre yi nekk Afrique Belgique France partout dans le monde quoi. mais Tapha MMA euh, lan moo jékki-jékki xiir la ci noon ba nga dugg ci. mais sport la booy xool sport la boo xam ne soreewut ak làmb ah. parce que fi ñu wutee mooy bu ngeen daanee da ngeen di continuer bon Sénégal yàlla benn may na leen don wu bëre avantage la ci ñoom ak yeneen ak yeneen la des nag da koy dem jàngi uuti ko mu mën a nekk ci yow nga ñëw pratiquer ko appliquer ko mu jiyee. actuellement liggéey nga ci ba wóolu sa bopp. non bu baax yàgg na pendant cinq ans. Hmm, oui laaj benn coach bu ñuy wax Alassi Gaye ma ne ko Tapha Tine dugg na ci MMA ba am na ci combat mois d' octobre mu ne ma Tapha dafa yéex a dugg ci MMA. parce que daa jàpp na yow taay bi nga am ak sa corpulence ak sa xeex boo ci duggoon ñi ci nekk yëpp yàlla nepp avantage quoi moom gis-gis boobu la ci amee. waaw maa ko doon pratiquer mais soowuma ci lool lool lool. loolu may remercier aussi coach yi nga xam nañ maa ngi ciy liggéey ni muy coach si David Ali Yag Serigne Mbaye Gueye ba ci coach si Matar Lo ñoom Baye Sall ñëpp xam nga maa ngi leen di ziare di leen ñaanal coach yëpp maa ngi liggéey ak ñoom. waaw kon xam nga ñu ci yoon wi daal en tout cas waaye. sa adversaire africain la wala européen la. thaïlandais thaïlandais thaïlandais la. xam nga ko bu baax benn si la tudd. xam nga ko bu baax. bu baax bien sûr. fii internet bi dara umpatul kenn man ni ma ko xamee noonu la ma xamee. Ah. moom est-ce que mas na jongante MMA. si de champion thaïlandais mun taay. Ah. oui yow bi mooy sa premier combat. bi mooy sama premier combat moom des na pile de dixième combat ah. dafa loolu wóor na. non amul benn risque. entraînement la sport la suñu lam jee ko gën a miti fii doo sol gant da ngay sol gant. léegi la douze léegi mu ñëw yàgg ama seen fi mu nekk nii def ngeen shooting ginnaaw contrat bi mu amee def ngeen shooting ngeen daje ci benn salle gisante bi nga dajee ak ama seen ci salle bi ngeen di def shooting bi noo gisee ama seen yow. waaw loolu jaaxaluñu parce que daje nañu fekk façon taay bu ne moo xam mbër mu gàtt nga wala nga njool wala poids léger wala poids lourd jaaxaluñu quoi gis nañu ko yàgg nañoo xam kon mooy ama seen ama seen yàgg na xam ku tafaatin loolu moom c'est des détails dañ koy bàyyeek waa mbed mi ku ne mën ngaa waxe nu la neex mais ñun ak ñoo xamante ah. ñun laa wax ñun mbëri yéen mbëri dañoo xamante bu baax comme ça lu leer laa lay wax. Eumeu ah. Sène xamante ngeen bu baax. bien sûr. mais ci naka. noo xamante nañ xamante nañ parce que combat bu ma am jombul mu ngi ci kaw moom tam combat bu ma am jombul mu ci kaw mu ngi may siif maa ngi koy siif xam kon xamante nañ. kon bu ma la laajee ne la ay ah, foor yi Eumeu Sène ak faiblesse am lépp Tapha Tine xam na xam naa lépp noté moom tam xam na lu bari ci man man xam naa ci moom lu bari mu ngi noté man maa ngi noté loolu la lamb loolu la parce que loolu la laaj. kon bésu lamb ja bu arbitre soufflé Tapha am na am na lu mu war a moytu ci Eumeu. fu may jaar man. fi ngay aw xam nga fa. bu baax bien sûr. fi nga war ta jaar. kon c'est pas l'appel ngay ngay ngay jël combat. fi nga war ta parce que itam xam nga. combat bu ne def naa ko ah. yow xam nga ci dara. waaw waaw métti bu nekkee exactement. ak kusaan bu nekkee seq nga ko mbër. wallaay ndeysaan waaye Abdou Bakhoum moom gisut loolu la mu gis mooy Eumeu Sène ci ay ponkol la jàngi bëre du mbër moo xam ne dañ koy jàpp di ko tee ci gëñu di ko xëcc muy ñëw nga koy kot wala nga koy dóor tànk di ko botti muy ñëw nee na ku yëg ci koom am lu la naqari. xam nga Abdou Bakhoum moom man vidéo am du ma rek. Ah. waaw damay reetaan bu ma seetaanee vidéo am seetaan naa la ak moom bu yàggut mais xam nga wax ja day indi culture Bawol lay indi teg ay dégg maam sangam nangam yooyu muy wax. bawol la mu ngi noonu. ma koy nuyu vraiment muy ku baax aussi xam nga moom tam bawol la deg mais bien vrai que am na droit défendre ñi te man gëm naa ne am na combat man lay farat. ci lu wér lu ma xam way bien sûr. Ah, combat bi da bokk ci moom. li ma la sànq am na droit défendre waa Pikine te loolu moo jaadu ah mën nga dëkk Bawol comme Landian tey moo ko amal seen ah, ah, voilà mu ngi dëkk Bambey moo ko Sall Bambey mi ñoo bokk benn dëkk voilà te day taxaw di ko wax. du tafaatin doon bëre keneen moom laay faral. te it noonu lay demee ko ah. mais technique boobu Abdou Bakhoum wax ci a seen parce que su lay doom da koo yëg mu botti ko. Mhm. te su lay doom njool la. waaw mais xam nga njool yi dañoo bëri te wuute loolu mooy problème bi. Ah. daa am njool yoo xam ne yàlla dafa def ñu mënul bëre mais am na njool yoo xam ne mën nañ bëre loolu ci don la ci nit lay nekk. yow ci njool yu mën a bëri yi nga bokk. sant yàlla. sant yàlla bu baax sant yàlla mooy roi VIP. yaa wax loolu yaay roi VIP. ama seen mu ne mooy roi VIP. waaw mais ay ay waxam la ak yow mi fi toog di ko défendre ay wax seeni wax la ko voilà mais ñun la ñuy pare ak ñoom Lamine Bey ñii ak waa Gris Baol mbooloo xam nañ ko loolu la. mais dafa tàkkusaan googu dina doy waar de. mooy li ma la wax dafa kin yi gën a xaar fii moom moo ko bëree. san yi nga xam ne day am culture. am xeex am bëre yooyu tafaatin la amul tricher amul combat di waaj ngay laba jalak yu kenn xamul noo dañ ñëw gérer suuru combat bi ñëw taxaw appliquer li ñu liggéey. mais am est-ce que xam nga ne bañkat la. mais góor loolu la góor tam xam nga loolu la góor il faut ngay bañ ah. te day siguñu ama day siguñu. déggoo li ma la wax góor da ngay bañ loolu la ñu xamee góor. Amadou Daw de. waaw loolu tax mu baax Babacar. takkusaan googu waa Bawol lu ñuy waaje parce que bul fàtte ne mbay guy gi mooy bëre spécial bi innovation bi ci waa Alburax def tafaatin nan la ko gisee. dolli ci kewel. waaw ak wulli numéro un. Ah, ah. waaw waaw waaw di di nuyu waa Alburax FM di nuyu Assis Ndiaye Baye Ndiaye ak staff bi yëpp. waaw di ci ñaanal xale yu Bawol ci am combat yëpp ndam mbay guy gi kewel wuli. voilà suur boobu daal maa ngi ñaan ndam yëpp dem Bawol daal. bi jaay Seydina barki Sewul Xadim. feet ngeen bëgg a def bés boobu. bu mag. mais Tapha Tine. bés buy saa kànd lay doon. Eh, te saa nappaaje gars yi dem eh, da nga leen di nappaaje. wér Babacar. Babacar ñu gis ñu gis boo ñaa nga andi leen ko saakaande. waaw Bombardier nga andi leen ko gar gar bombe. non non ah. non non gar gar bombe la ko andiloon gar bombe gar bombe ko andiloon. andil. am na ama seen xam nga dafa am gar gar tombe am gar dankaloo sa waay comme nee nañu gar bërekat la gar dan gar dankaloo laa koy indi gar dankaloo mais Tafa ana Babou Faye Babou mu ngi fi mu ngi lan mooy problème mu ak Babou Faye non wallahi asim xaw ma ko am naa combat yégal ko comme dab ci staff bi la bokk staff Tafatine comme ni may yégale ñëpp yégal naa ko c'est tout loolu la est-ce que bésu combat mën nañoo xaar moo lay tëggal pourquoi pas pendant dix ans douze ñu ngi mu doon ànd ak je pense voilà. mais man dama fort ci yow béykat yi moom sa combat ak Eumeu Sène bëggu koon ko quoi moom. ah sama xarit la nag wax dëgg yàlla déggante nañ yégal naa ko combat bi franchement. seq nañu lu ne ci àdduna. bare na ngir sama combat contre Bombardier moo ko teg ñu seq lu ne ci àdduna maa moom karanga yu ne seq nañu ko quoi. kon mooy for ndand yi bés boobu. ah am naa ci yaakaar bu wér a wér. Ah. sa digganteeg percussion dañu dañu dañu dégg ne demoon nga këram seeti ji ko sa digganteeg percussion. percussion waaw mooy mooy li may wax per moom. tey lépp lu ñu doon def fii sax moom la ñu waroon jeke ñaanal ko wér comme li ma doon yàgg wax ci moom xam nga moom xam naa famem xam nañ diiraan ci suñu galaaba xam nga am na yooyu jarut di wax quoi vraiment ñu ngi koy ñaanal wér daal yàlla yëkkati ko jàmm ak salaam na ko Sénégal yëpp ñaanal xam te am naa yaqin ne ñëpp a ngi koy ñaanal pour mu jóg ak jàmm ba di ñëw di partagé waat ak ñun ci stade yi parce que it ku am xorom la ci lambu Sénégal. père nam nañu la nam nañu kàng bi ak kosin ba bilaay bilaay ndeysaan des sol mbaxa nag kii bi wallaay am na solo dafa kontaan ci yow jaajëf ñoo far ba amal jàmm ok jaajëf